asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk téléspectateurs yi mbokk internet yi ñu ngi leen di wax dal leen ak jàmm ci seen premier numéro bu seen émission seen avenir fii ci télévision bi nga xamante ni mooy seen flash point com suñu numéro bu njëkk nag ñu daral ci madame le maire Aïda Sow Diawara maire de la commune de Golf Sud di la wax madame le maire dara ak jàmm. jërëjëf euh, waa seen flash TV ni ngeen seen numéro bu njëkk. ci man ngeen ko defee kon euh, yal naa leen jik ngeen dem ba am seen télévision bu mag euh, maa ngi koy ñaan ci barke sëñ Fallou ci barke weeru koor wi ñu nekk euh, yàlla jàppale leen ba ñu dem ba di leen teg fi ñu teg télévision yu mag yi merci beaucoup madame le maire je pense que kàddu yi rafet na ñu jublu donc ci suñu première question ma lay laaj madame le maire ban analyse nga def par rapport ak Covid 19 bi ba mu dugg cee ci réew mi ba tey gestion bi nga xam ne suñuy autorité teg nañ ko ban jàngat ga ci am yow. Ah, jërëjëf euh, defe naa ne question boobu bu am solo la ndax euh, defe naa ne 2 mars ba léegi ñu ngi ci Covid bi euh, façon bu ne jaar na fi façon waxtaan bu ne am na fi ñu koy jëkkee ci président de la république di ko remercier ndax teel na jël ay matuwaayam. Euh, teel ci euh, jël ay mesures ministère de la santé ak équipe am yëpp ay professeur CDR euh, docteur Xeme sax mënumaa lim ñëpp mais képp koo xam ne daal yaa ngi ci dugal sa loxo yaa ngi def li nga des ci armée bi tamit ak police ak gendarmerie sous préfet yi préfet yi gouverneur yi maire yi ku ne yaa ngi def sa partition dañuy gërëm tamit xale yi ndax ku nekk gis naa ci réseau sociaux yi ASC yaa ngi jog eh, association yaa ngi jóg ku nekk ngi jóg di wax waaye wax boobu yépp ak jëf jooju yépp eh, eh, defe naa ne feebar bi taxul mu dellu ginnaaw au contraire tey yi dafa tas ci dëkk bi kenn xamul fan la nekk ñu ngi lim ay dëkk yu mu nekk waaye xëy na am na yu mu nekk sax yoo xam ne xamaguñ ko amna ñu ko yor feebar bo xam nit ñi mun nañ ko yor te feebaruñu yore ko di ko wàllaate loolu moom dafa doy waar te tey jii gis nañ ne cas communautaire yi bare na feebar bi delluwul ginnaaw egg nañu ba mille trois cent et quelques cas kon tey jii jàngat bi ma ci def moo di lu coono bu ñu def rek des na li ci des nag ci nit ñi la ne parce que tey jii buñ nee nit ñi nañ toog seen kër buñ nee nit ñi nañ takk masque buñ nee nit ñi nañu jël mesure barrière yi raxasu bañ a nuyonte di jël ay euh, bu ñu waree toog soreyante au moins un mètre Yoyib yëpp ñu koy wax te terewul boo génn ci mbedd mi ñun ñaa ngi ci fees dell marché yi mënaguñ ko régulariser parce que marché yi mënuñu ko ndax nit ñi Sénégal ni mu demee am na ñoo xam ne suñu xëyee la ñuy lijjanti dem dugg ji ñëw togg donc mënuñu tëj euh, marché yi complètement euh, jaaykat yaa ngi ci mbedd mi di jaay jaay café jaay te yooyu yëpp normalement waroon nañ ko éviter te tere nañ ko terewul nit ñaa ngi génn euh, nit ñi ñuy def dara nga sévir gis nga couvre-feu bi bañ ko naree jaaxle ba police sévère couvre-feu bi tey jii defe naa ne euh, dal na donc euh, li ma jàngat daal moo de nit ñi seen indiscipline moo tax ba tey feebar bi des fi xaw ma indiscipline laa ko mën a tuddee xaw ma ñàkk bi ko mën a tuddee xaw ma nu ma ko mën a tuddee mais dafa mel ni jëlaguñu conscience ci feebar bi ni mu mën a dalee nit ak ni mu ni mu mën a gaañe nit maa ngi téléphone léegi benn nit boo xam ne daf ko dal mu nekk euh, ñu ñu ko ñu yóbbu ko daf ko dal ñu yóbbu ko yóbbu famille am yëpp léegi laa ko doon woo parce que ci commune bi la dëkk di ko wu mais euh, bu ma jëlee boobu exemple kooku doomam fa mu doon liggéeyee daf fa am donc war na xam ne seen kër confiné nañ leen donc ku ci mat war a wasin war nga xam ne yow mi déjà ñu ngi lay suivre kon nga téléphone ñu lay suivre wax ak ñoom mais ñit ñi jëlaguñu conscience ci feebar bi dañu yaakaar ne rek lu tuuti la te de feebar bi du lu tuuti ndax seetul ku am alal seetul ku ñàkk seetul xale seetul mag seetul jigéen seetul góor ci ñëpp ki feebaroon sax ba génn mun na ko amaat kon nga xam ne feebar la boo xam ne doy na waar ñu war ko moytu war a jël prise de conscience xam ne lii kat kenn ku ne mun nga jàpp ne am nga ko war nga ko mën a wàll sa morom kenn ku nekk bu defee loolu sa xel rek am naa ko naa moytu ndax dinaa ko wàll sama morom sama morom boobu wàll ko ci des kenn ku nekk bu xalaatee loolu rek di moytu rek bu ku nekk moytoo rek feebar bi jóge fi waaye tànk jëkk egsi wuñu ci moytu ku nekk jàpp ne sama morom bi may waxal mun naa ko ko wàll moom it mun na ma ko wàll kon nañ jël mesure yi teg ko kenn ku nekk xalaat ne naa raxasu balaa may dugg naa jël gel bi balaa may taxaw donc buñ ko defee rek defe naa ne feebar bi na dellu ginnaaw kon jàngat bi ma ci def daal mooy nit ñi ñoo ñoo jëlagul feebar bi ci seen euh, ni koy waxatee à bras nit ñi daal ñoo jëlagul feebar bi def ko seen yëf moo tax ba léegi feebar bi di gën di yokk d' accord madame le maire dégg nañ sa kàddu wax nga ne cas yi donc mi ngi yokk ba mille trois cent et quelques donc ak état bi mesure yu mu jël muy mesure barrière yi nga xam ne waa santé jël na ko ak couvre-feu bi ñu teg ak état d' bi ñu bi ñu décrété avec tout ceci kon feebar bi mi ngi continuer di law donc est ce que jàpp nga ne état bi mesure yooyu mu teg am na pertinence ba fii ñuy waxee waaw mën naa wax ne am na pertinence ndax bu ñu xoolee yeneen dëkk yi dee yi ni mu fa bare ngay xëy ñu naan la fii am na juróom benn fukki ju eh, eh, ni ñu koy waxatee juróom téeméeri nit ñu gaañu eh, am na junni nit ñu gaañu ñun ñu nekk ci deux mois yi ci onze décès kon ñu ngi kii waaye nag feebar bi delluwul ginnaaw parce que li ñu war a def tey jii man ci sama xalaat mooy confinement total te confinement total ñu ne musiba la fii ci Sénégal mais tant que egsi wuñu ci di sanctionner nit ñi sanction parce que sénégalais sanction la xam tant que sanctionné wuñu ñi taxawalu ci mbedd bi démb damay dem ci case ba romb clando yi gis am na ñoo xam ne takkuñu masque ma génnee paquet masque jox leen ne takk leen mais bi may bi may wàññeeku fekk san sa cameroun laa doon dem pour yóbbul euh, taalibe yi ñu confiné foofu bi may wàññeeku maa ngi fekk ñi ma joxoon masque yi ne leen takk leen masque takkaatuñu masque bi te dama romb mem pas 30 minutes jox leen paquet masque paquet 25 masque laa leen jox ne leen na ñëpp takk mais bi may wàññeeku ka a joxoon masque yi si boppam gisuma mu takk donc nga xam ne yëf yi si nit ñi la. d' accord madame la maire dama dégg nga ne solution bi mooy ñu dem vers une confinement total c' est à dire ñu confiner population sénégalaise bi et qui dit confinement xam ne am na ay mesures d' accompagnement yu war a àndal est ce que jàpp nga ne de jours suñuy réew wala suñu état wu dëkk na. pour accompagner population bi par rapport ak ñu def confinement total parce que mesure bu diis la mesure bu lourd la bu ma déggee sa kàddu nga ne fa la ñu war a dem loolu mooy solution bi dinaa la laaj est-ce que loolu buñ ko defee am nañ moyens ou wala mesure d'accompagnement yep dina suivre. da xam mesure d'accompagnement yooyu état moo xam dolem fu mu toll xëy ci étude bobu lañu nek wala xeyna xam na ne mesure d'accompagnement yi ci wara a am yëpp mënu ko motax deful confinement total mu def couvre-feu rek. waaye war nañu seet au moins wàññi bopp journée bi par exemple ñu commencé couvre feu bi prés ñu ngi doon wax naan 18 heures wala 17 heures commencé ko wàññi au moins temps bi nit ñi war a nekk ci biti. parce que état mu ngi dimbale gaa waaye nag euh, su ma xoolee ne 14 millions d' habitants lañu ñaata ménage lañu te 1 million de ménage rek la mën a dimbale fii golf bi 22 vingt deux mille ménage lañu te 6 mille kit rek la ñu am nga xam ne kon état bi mënul accompagner ñëpp. ndax euh, amuñu doole bi ñeneen ñi am mais déjà loolu c'est quelque chose mais donc moo confinement total bi si sama xalaat euh, mesure d'accompagnement yooyu amul moo tax ba kenn ko. d'accord nous ñu dugg tuuti ci commune Golfe Sud en terme d'accompagnement euh, des mesures sanitaires en terme sanitaire lan la commune Golfe Sud def envers sa population. waaw am bañ que nga xamee ne Covid bi dugg na Sénégal dañu woté ñun département Guédiawaye dañu jëk woté monté comité départemental bañ ca euh commune Golf Sud ma ñëw euh ñu def comité euh, communal bo xamné mako jité wayé quatre médecins chefs comme sanitaire la wax ma jël quatre euh, ICP comme quatre postes de santé là, avons ñu bok ci jël sama bureau municipal euh, mes adjoints donc jël ASC jël conseil communal de la jeunesse jël euh, bàjjenu gox yi jël imam jël curé bi euh, jël euh, société civile forum civil ñom ñep ma bolé len ñu def benn comité bo xamné ñun ñoy tok xalaat lan lañu wara def ci ci ci commune bi. donc suñu première action moy d'abord ñu former ay relais à partir des quatre postes de santé ñu poste de santé bu nek ñu former fa ay relais yóbbu dugal len ci bir commune bi ñu dugg kër par kër waxtaan ak nit ñi. parce que boobu temps feebar bi dugg seegul bu baax expliquer leen lan mooy Covid bi ak lan la ñu war a def surtout explique leen mesure barrière yi. bañ fa pare ñu jël euh, ambulance bi dugal ci communicateur ak euh, bàjjenu gox ñu def tuuru euh, commune bi pendant quatre jours di expliquer nit ñi lan mooy Covid bi ak lan la ñu war a def pour moytu ko. bañu pare ci loolu it jox naa waa poste de santé yi ay gel masque.

Euh, ñu woote waat réunion ñu ne yëf yi des na donc ñu commandé 20 000 masques ne quartier bu nee nañ fa joxe masque donc defe naa ne tey jii amul benn quartier bu nekk Golf Sud te joxuñu la masque euh, jox nañu quartier yi mais jox nañ tam service yi nga xam ne ñoo fi nekk service public yi muy les quatre postes de santé jox euh, perception police urbanisme service yi fi nekk yëpp daal ñëpp sous préfecture ñëpp ñu jox leen ay masque jox leen ay gel tamit Euh, pour que ñu mun a aar seen bopp euh, def nañ tam tuuru daara yi parce que bi ñu réunion ñu ne loolu ñu def ci daara yi doyul donc nañu xool nañu leen di yóbbu actuellement ñu ngi jël daara yi di yóbbu euh, benn benn parce que espace bi ñu am barewul donc mënuñ jëlandoo ñëpp dañuy jël par groupe di yóbbu bu ñu yóbboo ba gis seen famille ba delloo leen ñu jëlaat yeneen groupe yóbbu donc foofu la ñu toll démb rek togg nañu yóbbul daara Cambérène du moins euh, xale yi ñu jëlee ci daara yi te confiné leen ci centre euh, centre Cambérène ak bu Pikine bi pour que euh, ñu au fur et à mesure ministère de la femme ñëw di leen yóbbu démb rek togg nañu yóbbul leen togg it yóbbul ñi nga xam ne ñoo nekk hôpital dalal jàmm parce que nag waa santé ñu gër jara gërëm lañu ñu jara toppatoo lañu parce que fu feebar bi tey lu mu nasax rek ñoom seen liggéey moo tax mu nasax bien que nasax bi oyof na trop trop ci man parce que loo yu mu am ay ay malade tey rek gis ngeen ko amoon nañu trois cas communautaire encore te cas communautaire foo ko déggee ci ginnaaw xëy na cinquante personnes nga fa yoo xam ne gisaguñ leen. d' accord madame la maire dégg nañ kàddu yi ak éclaircissement yi nga indi par rapport ak action sanitaire yi nga xamante ni mairie bu Golf Sud def na ko par rapport ak population léegi may laajte rek ba xam yan mesure d' accompagnement la mairie bi tegagum wala la prévoir envers population bi envers les petites et moyennes entreprises. yi nga xam ne ñi ngi siège fii nga xamante ni mooy commune bi nga xam ne yow yaay maire bi. waaw euh, d'abord balaa ñuy wax ante antenne euh, xam nga euh, golf bare na ay banque yooyu. Mhm. déjà ñooñ sax dañ leen bind ne nañ ñu jàppale. mais sénégalais moo amul esprit naa dimbale maire yi pour ñoom maire yi moo war a ñëw rek si nit ñi mais ñoom waruñu ñëw si nit ñi. de sorte que fi am ñu am alal ño xam war nañoo mënon dimbali maire bi sax jëndon tay sen tonne ci wala sen ñaari tonne ñew ne maire ño la dimbale bu ñu dajalee yëpp séddale ko ku am mais ku nekk da ngay bëgg def sa action privée de sorte que di nga gis benn kër bu ñu duggal plusieurs euh, kilo ceeb am benen kër bo xam amul dara bon loolu façon lolu sen droit la parce que ñoom mom sen yef fu leen neex duggal mais ñun au niveau de la commune nous avons 1000 sacs de riz ak 1000 grosses sucre mais du dara par rapport à la population. parce que nous avons 89 000 habitants. Donc, 1000 du dara sibir. Donc, nous avons bi état joxe limuy joxe ba paré bu état joxe ba paré ñu sét dañuy combler gab bi dañuy bañ am double emploi motax dañuy xaar bi état joxe parce que état jox nañu 6000 et quelques euh kit donc euh, kitu état yoyu amna ci 1500 yo xamné RNU bi ñom lañ koy jox mooy ñi nga xamne dañu bindu woon déjà nek ci fichier état comme des personnes vulnérables légui nak mu déssé ñu 5206 yoyu dama créer euh, commune bu né ben comité de de veille et de suivi sanitaire donc comité bobu délégué de quartier bi moo ko euh, imam bi ak représentant église bi ak AS président ASC bi ak président euh, groupement féminin bu fa nekk ak euh, euh, bàjjenu gox bi fa nek ak euh, bu amna association de jeunes wala conseil municipal bu fa nek tamit ci lay bok donc équipe bobu ñoy seet ci quartier ñi nga xamné ñoko ñoo koy parce que man à part de la mairie mënuma xam quartier bu né ñan ñoko koy yellool ñoom ñi fa dëkk ño xam ñañu wara mëna dimbalé donc ñoñ ñoy tànn ñi nga xamné parce que 5206 yooyu séddale naa ko suivant la taille des quartiers donc quartier bu né xam nga ñaata ngay am donc ci loolu nga xam ñaata ngay am nag yaay tànn ci sa biir quartier nombre boobu nga xam ne ñoom ñoo dañu xalaat ne ñoo ko yellool euh, mun daa wax ne presque booy xool danga nga naan ñëpp ko yellool waaye am na ñu ko gën a yellool donc loolu mooy li nga xam ne moom mooy kii bu ñu paree lool nag ñun tam li ñu am ñu soog a complète incha allah. d' accord madame la maire nee nga sa population mi ngi toll ci quatre vingt neuf mille habitants je pense tout récemment gis nañ ay actions yi nga def par rapport ak jënd ay saabu. ay Omo Madar, ainsi de suite beaucoup ko population bi mais ñu dégg ci coow lu bari population quartier yu bari génn casse, déplorer action yooyu parce que nee quartier bu mel par exemple Fadia nga xam ne 360 maisons la ñu indi fa loolu nga xam peut-être mënul souvenir cinq maisons ñu ne y'a problème ma ne woon nag bu ma fi ñëwee dinaa ne nag madame la maire pourquoi action yooyu noonu nga def ak quantité boobu nga def lan moo war a sabab bi. waaw xam nga golf am na 36 délégués de quartier. Mhm. donc loolu ngeen gis Fadia 30 multiplier nañu ko par 36. Mhm. keroog maa ngi koy compter bu fekkee ne kenn ku ne jox nañ la benn saabu. parce que dafa am ku ma gis mu def ci réseau bi benn saabu ak 6 eau de javel yu ko jox ne loolu lañ ko sédd naan xool leen li ma mairie bi jox. Mhm. dafa choqué mais loolu dama compter rek benn saabu boobu. Euh, artiste ba daal di compté ko par 36 te quartier bu né joxe naa fa defe naa ñaari 36 morceaux de savon ak 36 euh, madar ak siu ojail bu def 100 sachets donc loolu euh, multiplier ko par 36 euh bu dé ku nek dañ la jox ben saabu wala ben madar wala benn euh, di nga dina def 1700 et quelques personnes lañu jox donc buñ ko xeeb bu ñu ko séddalee day tuuti parce que ku nekk danga nga si war a am tuuti rek mais buñ ko calculer maa jël bi ma gisee kooku bind ko ci ci réseau bi maa jël sama téléphone di calculer donc pour man tey jii euh, même bu dee ku nekk benn rek nga am 1700 et quelques personnes am nañ ko donc c'est pas une petite affaire nañu xam ne maire yi amul doole ndagam état mooy mun a ñëw mënul joxe état li mu joxe c'est à peu près le tiers des populations massa massa maire bi nga xam ne Euh, du du du du kees boo yore. Ah, da ngay def u mois le mois li nga am ci ngay circuler donc euh, nit ñi xeeb nañ ko waaye xamuñu yan condition lañ koy dee te loolu en tout cas jox nañu mille sept cent et quelques personnes maa ko doon calculer bu dee ku nekk benn saabu rek nga am on aura donné à mille sept cent et quelques personnes au niveau de la commune. donc jarul xeeb euh, defe naa ne ñamuma moo gën nuñ koy waxatee. ñam na mo gën suur xaw ma daal nañ koy waxate comme olof dafa dafa ki d'accord madame le maire dégg nañ nga né 1700 donc personnes. jot nañ ci nimbal yoyu té sank ci sa cadre né nga population Golf Sud ñi ngi toll ci 89000. donc bu ñu 89000 né 1700 yu jot. donc euh, un xaajaatu xaajaatu xaaj bi sax. Mm. jotuñu kon léegi may laajte lu waral lolu ba xam réménagement budgétaire dafa am. wala tey jii nii li nga xamante ni moo daan dugg ci recette mairie bi di jaaree ci marché yi ainsi de suite ba xam dafa nekk loo xam ne dafa wàññeeku wala nan la demee en réalité. waa ñun defaguñu réaménagement réaménagement budgétaire maa ngi woo léegi samay adjoint pour ñu toog waxtaan boo leen demee léegi ñoom lay recevoir pour ñu toog waxtaan. Mhm. defaguñu réaménagement budgétaire donc loolu ñu def dañ ko def rek ci li ñu mun. Mhm. Euh, te euh, budget bi dina wàññeeku parce que d'abord. feyekootuñu taxe locale parce que pas jii marché bu xam ne la marché bi di tëj bu subaa mu ubbi donc commerçant yëpp ñëwuñu jaay si ñiy ñëw jaay si bu ñu jaayee tey suba duñu ubbi donc taxe amatul xëy na publicité yi ak yooyu moo fi am te li fi nekk dañ koy fayee salaire ndax nit ñi duñu liggéey ba weer dee tam ñu bañ leen fay donc loolu moo waral doole bi fa la tax ñu def ko euh, donc taxe amatul taxe local du moins fayee ko tuñ ko benn marché fayeetul juuti jaaykat yi dañ leen tere jaay donc duñ leen wax ne ñëw leen fay te ñu ne leen buñ leen jaay parce que képp kuy jaay ci mbedd mi actuellement c'est de manière illégale parce que dañ ko tere donc kooku doo ñëw ne ko fayal taxe donc loolu yëpp euh, am na euh, li ci nekk moo di donc euh, li ñu mun rek la ñu def defuñu réaménagement budgétaire donc buñ ko defee réaménagement budgétaire boobu ñuy def moo ñuy permettre ñu fay mille sacs de riz yi ma la wax ak mille grosses sucres yi ma la wax mais ba léegi un réaménagement donc liñ ci def rek dañ ci def suñu coobare bopp ak suñu poche en attendant réaménagement D'accord, madame la maire xam naa ne émission bi mi ngi jëm ci jeex ma dugal laaj rek ba madame la maire impliqué na en réalité la gestion du commune par rapport au Covid 19 est ce qu'elle impliqué na ci toutes les tranches d'âge ou wala ba xam impliqué na ci toutes les tranches sociales qui nga xam ne existé na ci biir commune xam nga wax naa ma comité boo xam ne maa ko jiite naam waaye président imam yi mu ngi ci président délégué de quartier mu ngi ci président conseil communal de la jeunesse mu ngi ci woo naa yi tamit woo groupement féminin présidente woo bàjjenu gox présidente woo forum civil ki ko représenté euh, woo pour bañ ñu ne euh, benn parti rek la woo waa PDS woo euh, grand partie woo bokk gis-gis. APR a ngi ci PS a ngi si donc yaakaar naa ne euh, tranche yëpp ñu ngi ci biir. dëgg d' accord madame la maire je pense que apporter na ay éclaircissement par rapport ak suñu question yi ñu fi élaboré woon di ko wax boo doon wax sa mot de la fin lan lay doon. sama mot de la fin moo di rek euh, nit ñi nañu toog seen kër yéen ñu yore presse bi. Hmm. yéen dañu yaakaar pour ngeen gën a wax nit ñi gën leen a ñaax surtout ngeen di ay xale ngeen wax ak seeni morom. nañu toog ci kër yi ndax feebar bi euh, démb am na ku may waxal ñu naan ñun xale yi bokkuñ ci feebar ma leen bu doon xale yi bokkuñ ci kon bébé trois ans du ci du ci am kon nañ ñëpp toog seen kër fi mu ne daal li ñuy wax daal mooy toog leen seen kër te jël mesure barrière yi donc ñu bëgg nag yéen ñi yore presse bi ngeen jàpp ñu ci loolu pour que xale yi parce que xëy na ñun bu ñuy wax ñu ngi ñuy xoolee bëtu kii maire la kii politicien la alors que Covid bi du politique Covid bi peuple bi yëpp ñoo ko bokk parce que amul ku mu ku mu dal gis ngeen Angleterre premier ministre bala dal ah, gis ngeen euh, Allemagne Angela Merkel dafa mujjëwu confiné wu pour xool ndax dal na ko donc bàyyiwul kenn donc ñu bëgg ngeen wax nit ñi bàyyiwul kenn démb bi may wàcc maa ngi fekk lu mu vingt xale yu góor taxaw ceetu boulangerie ba fee dama leen xool dem naa bay taxaw sax wax ñoom ma ne ah est ce que ñii déglu nañ sax li ñu leen di wax est ce que ñun ñii faale nañ sax maire ñoo fal maire mais defe naa faale wuñu sax maire parce que bu maire di wax dañ ko déglu donc yéen ñi nekk ak ñoom am seen tranche ngeen jàppale ñu ci waxtaan ak ñoom daal ba ñu toog ci seen kër yi respecter mesure barrières yi euh, bu boobaa feebar bi loolu rek moo ko fi jëlee parce que état li mu war a def yépp def na ko xëy na am na yeneen avenir yu ma xamagul parce que je ne suis pas dans leur secret mais li wóor mooy li mu def ba léegi bu nit ñi respecté woon kon feebar bi jóge na fi waaye feebar bi jógewu fi day gën di yokk rek kon yaa problème war nañu xalaataat te xalaat boobu li koy jëkk mooy ku nekk toog sa kër di leen gërëm nag di leen sant yéen ñi nga xam ne mm-hmm. yéen a ngi jóg di dox di seet euh, di saytu ndax feebar bi xam seen indi seen partition ñu ngi leen di gërëm di leen sant merci beaucoup madame la maire di la remercier ci dalal bi di leen wax ne c'était votre émission seen Avenir premier numéro bi daraloon l'honorable député madame le maire Aïda Sow Diawara jox dig numéro merci beaucoup